fas jog nañ fas jog nañ la ilaha illallah fas yi jóg nañ may ngi seen xel de fas jog nañ fas jog nañ askay al kapong se kanam al kapong se kanam jamono ngi si wetam ha al kapo tarna al kapo tarna taar na ak mberaay waaye ñaar taar aw nga xam kabar am na fas yu taar El Capo taar na waaye mberaay nga fa jamono nga fa ah maa ngi seen jàkkeer bi sa kanam maa ngi seen jàkkeer kanam maa ngi seen jàkkeer sa jàkkeer bi kanam la ilaha illallah pop pop pop pop pop pop daaru ngi si kanam la ilaha illallah pop pop pop pop pop ah fas yi jóg nañ fas yi jóg nañ fas yi jóg nañ gaa yi jóg nañ gaa yi jóg nañ gaa yi jóg nañ gaa yi jóg nañ la ilaha illallah gaa yi jóg nañ gaa yi jóg nañ gaa yi jóg nañ la ilaha illallah gaa yi jóg nañ wop pop pop pop pop gaa yi jóg nañ taalibe seex ak leen sëkkatal taalibe seex ak leen sëkkatal la ilaha illallah may fa si kanam taalibe seex kay dab taalibe seex ndax mbay faal ay waay taalibe seex mbay faal course baa ngay neex laa ilaha illallah taaliba seex tey mu ngi daf jaloore laa ilaha illallah taaliba Cheikh Mbaye Fall taaliba Cheikh Mbaye Fall laa ilaha illallah Hai jóg nañ la ilaha illallah balla nga ya sa kanam soo ko doorang sa wetam di balla nga ya sa kanam soo ko doorang sa wetam kosam ma nga ma nga topp seen ginnaaw ah waaye ba jee ngi fël noonu ba jee ngi fël noonu ba neexul dara de ba jee ngi fël la ilaha illallah mu ngi troisième position première position Bébé Balla mu Baye Faye deuxième position Soko Dor troisième position Iba Dieye la ilaha illallah kursu baa ngay neex de fase langoo nañ de kursu baa neex langoo nañ kursu neex de fase langoo nañ de la ilaha illallah bopp bopp bopp bopp gaa yaa nga ca de gaa yaa nga de kursu baa neex de La ilaha illallah tuur ak daw Iba sa kanam Iba sa kanam Premier position Iba Dieng Baye sa wet ga bu Baye Faye sa wet ga Soga bu nga sa wet ga troisième position ci sooga door bu Thierno deuxième position Bébé Balla première position Iba Dieye bu bu Fass burtu baa ngay neex de burtu baa ngay neex de la ilaha illallah ay waay waay waay waay waay course baa ngay neex ëpp Iba Dieye première deuxième Bébé Balla troisième door கத்திரம் கொசம் jóg nañ fase jóg nañ fase jóg nañ fase jóg nañ fase jóg nañ Samba Sarete yaa ngi neex da Samba Sarete yaa ngi neex da Auguste ak Damel Auguste ak Damel Auguste première position Damel deuxième position Samba Sarete yaa ngi neex Samba Sarete yaa ngi neex laa ilaha illallah Samba Sarete yaa ngi neex Samba Sarete yaa ngi neex hop hop hop hop Samba Sarete yaa ngi neex Abdoulaye seen kaw Abdoulaye seen kaw Abdoulaye seen kaw Abdoulaye seen kaw Abdoulaye seen kaw Abdoulaye seen kaw laa ilaha illallah course baa ngay neex Allah akbar course baa ngay neex dey Auguste Damel Auguste Damel Auguste Damel Abdoulaye Abdoulaye leen troisième position Abdoulaye leen troisième Abdoulaye leen troisième wop wop wop wop course baa neex Auguste ak Damel Auguste ak Damel Auguste ak Damel la ilaha illallah course baa ngay neex Auguste Damel Auguste tey Abdel Sow a ngi seen kaw Abdel Sow a ngi seen kaw Auguste Damel Auguste Damel Auguste Damel Auguste Damel Auguste Damel Auguste Damel la ilaha illallah Auguste Damel Auguste Damel Auguste Damel Auguste Damel Auguste Damel Auguste Damel Auguste Damel Auguste Damel Auguste Damel Auguste Damel Auguste Damel Auguste Damel Auguste Damel la ilaha illallah kurtu bi neex na fas yaa ngi fële mooy seen maa ngi fay seen Arona Aset maa ngi fay seen Andala maa ngi fay seen Moussa la fay seen ñu Jaw ay fas yi jóg fas yi jóg fas yi jóg fas yi jóg

andalaga génn ran la ilaha illallah ran ñu gën nga xam du borom ci andala ba ngay ñu juga jawa nga fa juga jawa nga fa arna sa kau, sen kaw arna sa tang sen kaw la ilaha illallah ay wa kursu ba ngay neex naaru góori tay ñi ngay jëf de naaru kucingnya ya ngay jëf de kenn bu ko baye sa morom kenn ku ci nekk mu bëgg won li nga li mo sa la ilaha illallah ah andala génn na andala génn na andala génn na juga jawa ngi deuxième di yang kedua deuxième arna asetang sa arna asetang si kawam arna asetang si kawam arna asetang si kawam la ilaha illallah kursu kursu ngay ya ayo ayo kursu bangai ngay ya juga génnaat na juga génnaat na anda langai tar juga génnaat na ayo ayo ayo ayo waay andala taar na arna asetang apa oh anda rayan taar na rayan taar na rayan na arna asetang bang juga juga nggak sa arnasetang sikawam jugang isa kanam arnasetang sikawam jugang isa kanam arnasetang sikanam la ilaha illallah kusumangai ne jugang isa kanam arnasetang sikawam arnasetang kaisa katal arnasetang sa kaisa katal arnasetang kaisa katal la ilaha illallah jugang isa kanam bona gangai dafyar bona gangai dafyar arnasan paya gulda bona gangai dafyar la ilaha illallah arnasetang terf na jugaan la ilaha illallah njuga jug na njuga jug na Fass jóg nañ Fass jóg nañ Fass jóg nañ Fass jóg nañ Fass jóg nañ pop pop pop pop pop pop njuga jaw première deuxième arna aset njuga jaw première deuxième arna aset la ilaha laa course ba neex na course ba neex na